waqul jaa alxaqu wa zahaqa albaatil inna albaatila kaana zahuqa seen seen mbokk seen xarit Mouhamadul Bousayri ñëwaat nañu ci benn jotaayu spécial boo xam ni Cheikh Pape Fall moom moo ko sàkku ci ñun te mooy waxtaan ci burdat Mouhamadul Busayri bala ñoo ñëw ci Mouhamad ci ci ci burd bi ci boppam euh, ndax man dama cee am wàll kon xam naa ni fokk rek euh, maanaam ñu wax ci Mouhamadul al imam Mouhamadul Busayri bii euh, nga xam ni moom la ñuy jàng burdam turandoom bii di wax te mooy man Mouhamadul Busayri nga xam ni maanaam sëriñ sëriñ Abbas suñu wayjur moo ma ko tudde sëriñ Abbas nag gisul Muhammadul Busayri ndax mu fekku fekkente wuñ sax jamono seen diggante maanaam ay téeméeri téeméeri at la Muhammadul Busayri mi ngi juddu bi gàddaay gi amee juróom benn téeméeri at ak juróom-ñett génn àddina bi gàddaay gi amee juróom-benn téeméeri at ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñaar loolu boo ko seetee boo ko seetee kon moom dund na juróom-ñeent fukki at yu manqué benn at Sëriñ Abbas bi mu euh, maanaam yére aw bindam mu yim ko lool daal di koy tuddee doomam. moo tax keroog ba sama bisum ngénte nekkul ngénte yiñ xam gàmmu la bis boobu boo burdu bi dañ koo way mu jeex takk maanaam du ni xam nga burdu euh, bis bu nekk dañ koy dañ ci def dañ ci way ab bunt wante fukki bunt yëpp la ñu way bam jeex takk ci bis bi maanaam gàmmu la woon bis boobu loolu nag mënu koo bañ a wax ndax ñu xam Muhammadul Busayri fi mu tolloon ci mag ñi moom nag turam mooy Muhammad la tudd ibn Sarid ibn Hamad ibn Muhsin ibn Abi Surur ibn Hibban ibn Abdillah ibn Malak ak Assan Hajani Assan Haaji la asalhaaji mooy santam maanaam mooy euh, lañuy fañ koy askanale moom nag euh, maanaam euh, burdam bii def bi burdam def tudde ko burd al burda al burda mooy lan al burdatu mooy manto manto yooyu moom nag xasiidaam bi daf koo tudde xasida euh, Kaab ibn Zuhayr booba mooy burda ba nga xam ni mooy bu njëkk bi mooy bu mag ba mooy bu mag ba Muhammadul Busayri nag bi mu bi mu taggee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci burda bi euh, maanaam mu gis ni daal dafa moom daal euh, nuru naag burdatul Kaab mu tudde ko burda ndaxte ñaari xasida yëpp dañ ci tagg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam Kaab ibnu Zuhayr xëy na bokkuñu xaafiya euh, bokkuñu xaafiya waaye ñoo bokk ñoo bokk baxu ndaxte Kaab ibnu Zuhayr daf dafa tiim yonent bi di tagg naan ko inna rasula la nuurun yustabaau bihi muhannadu min suyufillahi masluulu fi fityatin min qurayshin qaala qailuhum bi batni makkata lamma aslamu zuulu nubbitu anna rasulallahi aw'adani wal afu inda rasulillahi ma'mulu la njëkk loolu mu ni yas'al wushaatu bi janbayha wa qawluhum innaka yabna abi sulma la maqtulu fa qaala kullu wa qaala kullu xalili kuntu aamuluhu laa ulfiyannaka inni anka mashgulu fa qultu xallu tariqi laa abaa lakumu wa kullu ma qaddara arrahmanu maf'ulu muy wax ak yonent bi ñu ko mahlan hadaka allati ataaka nafilata alqurani minha mawaacidun wa tafsilu qurani fiha mawaacidun wa tafsilu laqad aqumu maqaman law yaqumu bihi ara wa asmau ma law ma law yasmau lqiilu la zalla yuradu illa an yakuna lahu min arrasuli bi idnillahi tanwilu maanaam noonu la ko jàppe yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal di summi burdaam jox kaaba kon xasida boobu mooy maanaam burda burda yonent bi dafa simmi dam jox kaab mu zuhayr burda boobu kaab yor dañ koo mujj Muawiya moo ko mujj jënd ci moom après nag buur yi di ko doon nante ñoom di ko sol ci aayaat yi bi Muhammadul Busayri ñëwee nag taalif xasidaam tudde ko burda moom Muhammadul Busayri Ahmad Shawqi Ahmad Shawqi ñëw na moom it def xasida bu mu taggee yonent bi tudde ko na nahjul burda maanaam dafay jaar yoonu Busayri toppandoo Busayri ci burda bi daal di def même euh, euh, xasida dama jum même baxar laay wax def tamit même xaafiya da nga moo tax ahmed sawqi da ngay dégg mu naan mu naan lan riimun ala alqaa bayn albaani wal alami axalla euh, safka dami axalla safka dami fi l ashhuri l xurumi muy wax ba wax ci yonent bi ni ko asra bika allahu leylan iz malaikuhu fekk day wax ci isra wal mi'raj ni ko asra bika allahu leylan iz malaikuhu eh, iz malaikuhu fi lmasjid al aqsa ala mi ngi naan ko salla waraaka minhum waaw kay salla waraaka minhum kullu di xatari wa man yafus bi rasulillahi yama yatamini jubte samawatu ba muy jëm ca kaw aw ma fawqahunna dujan ala munawwaratin durriyatu lujumi muy wax di wax di wax ba wax ni wa qaala wa qiila kullu nabiyin inda rutbatihi wa ya muhammadu hada al arsh fastalimi loolu lépp maanaam eh, Ahmed Shawqi maanaam moo ko def ci ci nahjul burda loolu daal eh, laytaay la ci commencement pour wax pour wax leen rek maanaam burda bi cosaanam Euh, tur tasmiya bi fan la jóge moom tamit Ahmed Shawqi bi mu ñëwee topp ko moom it macha allah maanaam topp ko ci xaaf ci xaafiya bi topp ko ci wasnu bi moom kalimaat yi rek ndaxte euh, Mouhamadul Busayri moom day tagg yonente bi alayhi salaam bi sifa amma euh, Shawqi nag macha allah moom dafa am ay mawaadi yoo xam ne daf caa tagg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam comme ni ko Mouhamadul Busayri defee mu des nag maanaam loo xam ne mënuñu ko bañ a wax mënuñu ko maanaam mënuñu ko laam-laamee du noppi loolu déedéet foog ñu leeral ko Muhammadul Busayri am na ay intiqaadaat yu bare bare bari yoo xam ni boroom xam-xam yi dañ ko dañ ko ce dañ ko dañ ko diinga ci burdam bi da ci nee nañu da ci am ay abyaat yoo xam ni da ko wax abyaat yooyu nag nee nañu maanaam ay shirkiyaat la ay bokkaale maanaam am na ci ñetti bayit boo xam ñetti bayit yoo xam ni loolu dañ koo euh, diingate Muhammadul Busayri ci burdaam bi mu def bayit yooyu bokk na ci bi mu waxee mu ni yaa akramal xalq maa lii man aluudu bihi siwaaka inda xuluuli alxaadisi alamimi in lam takun aaxidan yowma almacaadiyati afwan wa illaa fa qul yaa zallata alqadami fa inna fa inna min juudika dunya wa darrataha wa min culuumika ah lawxu alcilmi walqalami ilmu lawxi laa wax wa min ulumika ilmu lawxi wal qalam nee nañu ñetti ñetti bayit yi nee nañ bokkaale la am na ñu wax ni ni ni am na ñu wax am na sax ñu wax ba ni yéeféer la léeg-léeg man gis naa sax ñu laaj euh, Saalih Maghaamis ni ko ni ko hal yajuuzu taraxumu ala Busayri yaani daani hal yajuuzu an yuqaal Busayri rahimahullah Maghaamis daani Maghaamis daani awalan awalan rahima allahu albusayri foofu lay commencé sama maxaamisi wolof fi may commencé sama sama tontu mooy rahima allahu albusayri kon gis nga ñooñu ndeysaan dañu leen a lëndëmalal lëndëmal maanaam jël Busayri def ko muy ab yéeféer nañ ab mushrik yaani subhaanallah yëkkatee ko yëkkatee yëkk xoola kii nii zalamtu sunnata man ahya zalama illa an ishtaka qadamahu durra min warami léegi kii wax kii wax lii kii wax lii doon da da ab mushrik la maanaam est kii wax lii koo xam ni euh, xasidaam bépp koo xam ni xasida bi yëpp boo seetloo bu bu bu bu maanaam yow booy booy jàng xasida bi yow sa bopp da ngay da yëg ni kii kat fa muy wax na na muy waxee moom maanaam ak mbëggeem lay demee même ci xasal bi sax même ci xasal bi boo ñëwee ci xasal bi ci xësal bi muy def xësal ay xikma moo nekk ci xësal bi xoola mu ni wa xaalifi nafs wa shaytaana waasihima wa in huma maxadaaka nusxa fattahimi wala tuti minhuma xasman wala xakaman fa anta taarifu kayd alxasmi walxakami bokk na ci li gën a balaaxa ci ci burda min awaliha ila axiriha bokk na li ci gën a balaaxa bayit bi ci gën a nekk balaaxa mooy wala tuti minhuma xasman wala xakaman fa anta taarifu kayda al xasmi wal xakami yani subhaanallah maanaam wa xaalifi nafsa wa shaytaana waafihima wa inhuma mahabaaka nusxa fattahimi léegi yow nga ni déedéet mushrik la ab mushrik dana wax li subhaanallah ab mushrik du wax lii di kon ay wax la yoo xam ni euh, wax wax jooj diñ ci mën a ànd beneen bi mooy bu fekkente nit dafa wax wax ab wax wax ji euh, te te te kooka nekku fa te yow ka ngay kooka néewu fa xam nga nooy def euh, jël ko ci maxmal jël ko ci maxmal bu baax bu rafet maanaam da ngay da ngay xool lim jëkk a wax xam nga ki naan <coughs> kii melal yonent bi banaan zalamtu sunnata man axya zalaama ila an ishtaka qalamahu durra min warami wa shadda min saxabin axshaahu wa tawa taxta alxijaarati kashan mutrafa alabi adami wa raawadathu aljibaalu shum min dahabi an nafsihi fa araaha ayama shamami waaw léegi kii kon yow boo gisee loo ab subha boo gisee ab subha mu wax boo dee ba ca kanam nga gis ay abyaat yoo xam ne gis nga ni la da koy jël ci maxmal bu rafet da koy jël ci ma firee ko piri mu rafet te bañ koo firee piri mi kii kat bokkaale kat la ndaxte borom bokkaale kat kon ca commencement xasida bi lay lay lay waxee di wax rek lay lay commencé di wax ay ay shirkiyaatam gis nañ fa ay xasaayid ba tey ay xasida yoo xam ne euh, xasida boo xam ne lépp ndax ci commencement shirk commencement ba mu jeex lépp ay shirk lay wax kooku am na fi ba tey wante burd bi boo seetloo zalamtu sunnat maanaam dafa leer nañ kon nañuy bàyyi euh, di déglu ñoo xam ni di àgg ba naan ndax ndax dagan nañu ni bu say rahimahullah maanaam lii subhanallah loolu mbir la moo xam ni nañ ci bàyyi xel suut nag koo xam ni yow nekkul génn na àdduna seetal nga xool maanaam xoolal bu baax a baax maanaam euh, euh, euh, lim wax xoolal bu baax lim wax nga jéem koo tawil loolu nag boo koy tawil boo koy firi firi bu rafet da ngay dangay ngay seet ca yëm jëkka wax xam nga firawn firawn dafa ni ana rabbukumul aala léegi benn waay jógee fële dikk daal ni eh firawn jublu ci ana rabbukumul man maay seen borom de maay seen yàlla jublu ci yàlla de ndaxte rabb dana firi kilifa li mu bëgg mooy man maay seen kilifa gu mag gi la ci jublu loolu wax jooju ku ko wax dañuy del dañuy wax ji ci bopp nañu jël sànni ca bari parce que dañ naan ko firawna moom dafa wone ak mbom ak ak mbon ba pare ndax ana rabbukum ala bi mu wax yàlla ne yàlla ne fa araahu l ayata al kubra fa kazzaba wa asa summa adbara yasa fa xashara fana xool yi jiitu yëpp maanaam ak mbon moo ko jiitu ba pare beneen aaya mu ni yaa ayuha almalau maa alimtu lakum min ilahin gayri fa awqid li ya haamaanu ala tiiri fa fajcal li sarxan laalli attalicu ila ilahi muusa wa inni la azunnuhu kaasiba wa in la azunnuhu min alkaasibin xam nga ni lii kii bu ne ana rabbukum ala yàlla moom moom mais man maay seen yàlla la ci kon kooku bokkul wante koo xam commencement waxam lépp commencement ay tawxid la commencement di tagg di tagg di wax ay xikma ba ñëw ci yonent bi ni zalamtu dafa am lu naa xusnu taxallus dafa def xusnu taxallus bu am solo moom Muhammadul Busayri maanaam euh, xusnu taxallus bu am solo xoola bi muy wax di wax di wax daani astaghfirullah xam nga moom tëbul tëb rek euh, dafa am lu naan xusnu taxallus mooy mooy mooy jóge ci xasal ñëw ci mawdu bi ngay wax jóge ci xasal ñëw ci mawdu maanaam boo dee tagg boo dee tagg dara jóge ci jóge ci ci xasal parce que xam nga xasal moom ay xiyaal yaat da ngay xiyaal da ngay xiyaal di wax rek waaye boo ñëwee ba ci ba ci sa lubbul mawdu nag doo tëb tëb rek indi da da ngay def li ñuy wax da ngay def li ñuy wax xusnu taxallus xam nga dafa ni moom astaghfirullah min qawlin bila amalin laqad nasabtu bihi naslan li zi uqumi daal ni amartuka al xayra lakin ma tamartu ma tamartu bihi mi mi ngi wax ak boppam mi ngi wax ak boppam wa ma staqamtu fa ma qawli laka staqimi wala tazawwadta qabla al mawti nafilatan walam usalli siwa fardin walam asumi xam nga kon ma ma ngay ci xësal ma ma ngay génn ci parce que astafirullah loolu ba mu commencé génn ci xësal mi ngi wax ci boppam waaye muy ñëw ba ni zalamtu sunnata zalamtu zalamtu sunnata man ahya ah ma am am na ku muy waxi de am na ku muy wax de zalamtu sunnata man eh, man ahya zalama nga ni ah waaw kon ñi ñi dina guddi gi bari waaye nag mu ne ila an istaka qadam qadamahu durra min waaye nga ni ah kooku mi li muy wax mi ngi xeeñ yonent bi de ñu mu ni la wa shadda min saxabin axsaahu wa fawa taxta alxijaarati kashan mutrafal abi adami nga ni ah kii de yonent bi doo ngay wax mu ni la kaay nga gën koo xam waraawadat hul jibaalu summ min zahabi kooku kan kan moo ko am Babacar Diallo boo ni ko am benn benn benn lengu or doo nga ngi nii mu bàyyi groupe mu waxul jaar xaq yonent bi nag waraawadathu ljibaalu summ min zahabi an nafsihi lu mu def da ko jël fa araaha ayyama shamami léegi nag léegi nag léegi nag indi na jikko ji ba pare te tuddugul tur bi léegi nag ba tey tuddul tur bi mu ni wa akkadat zuhdahu fiha daruratuhu inna darurata la taadu ala al isami léegi nag jeex na nag mu daan nag muhammadun sayidul kawnayni déedéet dafa waxaat na sax mu ni wa kayfa tad'um ila dunya daruratu man lawlaahu lam taxruju dunya min al adami daan ni nag muhammadun sayidul kawnayni wa avant muy wax muhammad xool li mu jiital yëpp loolu lañuy wax xusnu taxallusi ci way léegi ñu ñëwaat ñu ñëw ci ñetti ñetti bayit yooyu nga xam ne bi ci njëkk mooy euh, yaa akram al xalqi maa lii man aluudu bihi siwaaka euh, maa lii man aluudu biki maa lii man aluudu bihi euh, naam yaa akram al xalqi maa lii man aluudu e man nag lii may wax nii gisuma ko ah yaa akram al xalqi man maa lii man aluudu bihi siwaaka inda xuduusil xaadisil amimi yaa ngi dégg léegi ñu ni ñu ni léegi loolu yàlla dong lañu war a wax kii lii wa maanaam xasida bi bayit bi yàlla dong moo koy yoon ndax laada yaluusu al almalaasu ki ki ki nga xam ni moom la ñuy dem di di di dem di di di def malaas ci moom mooy yàlla maanaam ki ñuy jëm ca moom di fa di di ca jublu ji kookee di ca wéeru ji kooku yàlla rek la léegi lu ñuy tontu foofu liñ fay tontu mooy albusayri lim jublu ci maali man aluudu bihi siwaaka ah inda xuduusi inda xuluuli alxaadisi alaamimi maanaam yow mi nga xam ne yaa gën a tedd ci ci mbindéef yi Sëriñ Abbas ma ngay wax ci moom it ci taay yaa akramal xalqi maadihim wa xaadirihim wa man sa yati min axyaain wa amwaati wante bii yaa akramal xalqi yow mi gën a yow mi gën a tedd ci mbindéef yi maa lii man aluudu bihi man de man awma kenn koo xam ne naa jëm ca moom kañ siwaaka ku dul yow kañ inda xu inda xuluuli jamono ja jamonoy wàccu lan alxaadisi al amimi léegi taxaw ci xaadisi al amimi alxaadisi al amimi alxaadisu al amim mooy xew-xew bi nga xam ne bu ñëwee lépp lay lamb kenn du ci mucc boobu xew-xew amul ci àddina bi kon Muhammadul Busayri jubluwul ci àddina bi de jubluwul loo xam ni àddina bii la lim jublu mooy yawmal qiyaamati te loolu mooy mooy mooy mooy mooy mooy yawmu shafaatul uzma lii mu wax yonent bi yonent bi doomu moo ko am ci nit ñi mooy ashafaatul uzma dañuy ñëw ci nuux ñu ko yaa nuux anta awwalu nabiyyin arsalahu allah azza wa jal yow yow la yàlla jëkk a yónni kon nag rammuñu sa borom rammuñu nuux ni daal di loolu mën awuma ko loolu mënuma loolu loolu moom ma loolu yoruma ko ñu ñëw ci ibrahim yaa ibrahim yow yaay xaritu yàlla ibrahim gànt ñu ñëw ñu aadama sax daan ci ñëw ñu aadama yow mi nga xam ne yàlla moo la bind ci loxoom bi ya day ya yàlla ni as day ya yàlla waaw léegi yow loolu euh, euh, euh, ni aadam te ñoo ramm ñu ñu jóge ci ndaxte yawmal qiyaamati yàlla subhanahu wa taala day dajale ñëpp ci benn pàkk day dajale ñëpp ci benn pàkk du wax kenn dara kañ ba heure bu ko neex ila ma shaa subhanahu wa taala léegi nag foofa day day metti nag loolu mooy yawma laa zilla illa zilluhu yawma laa zilla illa zilluhu léegi nag foofa day dem ci day daa dem ci aadam dem ci dem ci nuux dem ci ibrahim dem ci muusa koy daa ci dem ba ñëw ci yonent bi ba ñëw ci yonent bi ñëw googu ñuy ñëw nag ci yonent bi léegi ci kan lañu ci kan la ñuy dem yonent bi la ñuy dem sallallahu alayhi wa sallam yàlla moo ko ko jox alshafaatu al uzma loolu yàlla ko jox yàlla moo ko jaglee loolu léegi nag bi ñëwee ci yonent bi yonent bi wax lii moom man maa ko moom maanaam lii man maay ki man maay kiy jóg taxaw ci lii ngeen sàkku daal dem su jot ca kanamu yàlla subhanahu wa taala comme ni mu nim ñu ko waxee moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam léegi nag moom la Muhammadul Busayri di wax ni bu boobaa kan laa am ci kan laa am kan laa am googu nag Busayri jubluwu ci ni wàllu yàlla bi fi mu jub mooy kan laa am du nuux du ibrahim du Moussa du Adam yow mii la yow yow rasulullah loolu loolu mooy inda xululi alxaadisi al alxaadisi al amim benn xew-xew dong la mooy yowmal qiyaama kon kon kon léegi kon yaakaar naa bayit boobu dégg ngeen ko bu baax a baax ñu ñëw ci benn bayit bi léegi nag in lam takun aaxidan yowmal maadiyati in lam takun axida alyawma almaadiyadi afwan wa illa faqul yaa zallat alqadami maanaam maanaa bay maanaa bay bi yow yaa yow rasulullah boo jàpp sama loxo ëllëg yom xam nga loolu dafay am ñun ñëpp ci gannaaw yonent bi la la yaakaar yowm alqiyamati ëllëg ramm yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi lu mu wax ci kuy noddu buñ noddee ba pare man qaala xiina yasmau nida allahuma rabba hadihi daawa tamma wasalaati alqaima aati muhammadan ilwasilata walfadila wabcasu allahuma almaqama almahmud alladi waadta xallat lahu shafaati yowma alqiyama kon nag yow boo téyewul sama loxo ëllëg yowma alqiyamati ramm ma kon de kon jàppal ni kon perte naa effectivement même ñiy dugg àjjana yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yashfau li ahli aljanna an yadxulu aljanna waaw kon Mouhamadul Busayri lu loo jublu wante jubluwu ci ni jubluwu ci ni defu ko yàlla deful yonent bi yàlla joxul yonent bi loo xam ni yàlla ko jagoo mu jox ko ndaxte yàlla yàlla subhaana yonent bi moo jottali ci ni moom moom mooy ki nga xam ne yowmal qiyaamati moom da moom dafay ram moom loolu leer nañ moom kon nag moom te yonent bi nee xallat lahu shafaati loolu amul benn bu am droit wax ko ku dul moom rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam léegi boo ñëwee ci fa inna min juudika dunya wa darrataha wa min ulumika ilmu lawxi walqalami xam nga li ma waxoon ba léegi dama dama ni buñ xoolee Muhammadul Busayri fam commencé amit amin tazakkuri jiraan bi bi salami di ñëw di ñëw di ñëw ba passé bayit bi di continuer di tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba wax sax ni dama da dama daathu nasaara an nabii fii nabiyihimu kon kii ma ngi lay kii moom ma nga lay moytuloo ma nga lay moytuloo ak ëppal ci tagg yonent bi waaw léegi kon kon yow ra kon yow da koy fiiril fiiril bayt bi ci maxmal bu rafet léegi nag wa wa fa inna min juudika dunya wa darrataha maanaam yow day wax ni sak tabe addina ak alaxira addina ak ci te ilmul lawxi wal qalami xam-xam bi nekk ci lawxul mahfuz xam-xam bi nekk ci bindikaay yi kooku bokk loolu bokk na ci sa xam-xam léegi ñu ni xam-xam yi dafa am lu ñuy wax tashtiitu damair te li may wax nii bàyyi leen seen xel bu baax a baax ci lii may wax ci wàllu luxal arab bi daa xaw xóot arab daf naan dafa am lu mu tuddee tashtiitu damair ñenn ñi di ko tuddee mu daaxa tadaaxulu damair léeg-léeg ay damair da ngay wax di wax di wax benn damir bi de wante ba pare jublu ci jublu ci keneen ku dul loolu dafay ñëw ci luxal arabiya ñëw na ci alquran par exemple ci misaal laa joxe rek euh, dañ ni fa inna min juudika dunia wa darrataha am na boroom xam-xam yi nee loolu bayit bi yàlla lañ ko war a wax kon ñu ni kon muhammadul busayri yàlla lay waxal foofu léegi nag ñu ni waaw lu booba yaa rabbi dafa ñëw dafa bokk ci arabiya dafa bokk ci loxal loo xam ne boo ñëwee da nga koy da damair yàlla nee na ci alquran inna arsalnaaka shaahidan wa mubashiran wa nadiran li tu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa wa tuwaqiruuhu wa tusabbihuuhu bukratan wa asilan tayib tayib yàlla nee na inna arsalnaaka shaahidan wa mubashiran wa nadiir li tu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruuhu yonent bi wa tuwaqiruuhu yonent bi la léegi nag wa tusabbihuuhu ah kooku yàlla la bukratan wa asila kon gis nga léegi wax na yonent bi wax yonent bi ba yàgg daal di wax ci yàlla daal di wax yàlla aaya bi loolu lay wax lu sax loolu lañ naan tashtiitu damair maanaam damair yoo xam ni dafa duggante tadaaxulu damair ba damiru yàlla dafay dugg léeg ci damiru keneen ku ku dul yàlla ci yonent bi masalan sallallahu alayhi wa sallam kon inna arsalnaaka shaahidan wa mubashiran wa nadiran li tu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbixu xam nga wa tusabbixu yonent bi kenn du ko sabbal wa tusabbixu yàlla moo ko moom xanaa kon bu boobaa kii bu ko keneen waxoon ku dul alquran ka ko wax ñu ni ko yow bokkaale nga déedéet nag luxal arabiya dafa xóot ma indi leen benn aaya yàlla dafa wax dégg leen aaya bi subhaana alladi asra bi abdihi bi abdihi laylan min almasjidi alxarami ila almasjidi alaqsa alladi baarakna xawlahu linuriyahu min ayatina gis na xam nga dama il duggan bi innahu huwa samiu albasir la yàlla léegi li xam nga yàlla newul linuriyahu min ayatina innani ana samiu albasir waaye dafa ne innahu xam nga bi abdihi laylan min almasjid alxarami ila almasjid alaqsa alladi baarakna xawlahu li nuriyahu li nuriyahu kan yonent bi min ayatina innahu huwa samiul basir est-ce que est-ce que ak samiul basir yonent bi la déedéet foofu damir damiru yàlla ak damir yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gis nga ni mu duggantee yàlla dafa booyee damiram ak damir yonent bi loolu mooy balaaxatu quran kooku gaaya fi balaaxa la ma waxaat ko subhaana alladi asra bi abdihi damir boo fu mu jëm mi ngi jëm ci yàlla ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله dabi ba mi jëm fan ci masjid alxaram ah mi ah, ci masjid al aqsa la jëm li nuriyahu dami bi ci yent bi la jëm min ayatina naagi naagi damiru taadim ci yàlla la jëm subhanahu wa taala innahu huwa samiu albasir fu mu jëm est ce que da nga naan dami bi ci yent bi la jëm ci yàlla la jëm tadaaxulu damair nag ni muy amee ni amee noonu ci alquran alquran dañ ko wàccee ci bi lisaanin arabiyyin mubiin noonee lay ñëw ci làkku arab kon nag lii mën na ni Busayri Busayri mën naa ne ni Busayri yàlla la ci jubul moom moom yàlla subhaanahu wa taala mais buñ tëb tëb rek daani Busayri bokkaale na déedéet ndaxte lugal arabiya dafay def tadaaxulu damair yaakaar naa loolu leer kon ñu ñëw suñu yaakaar naa ni est ce que dërs bi sax dërs bi da ba mu ñetti béy lañ ciy def lii lépp ab laytaay la woon xam naa laytaay bi moom Cheikh Jibril Jibril moom bu ñëwee daañu ma ah sa laytaay bi de moom ala kulli xaal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ko Busayri Muhammadul Busayri di tàgg dafa ba mu ñëwee di ñëw di ñëw ba ba koy commencé nag bay def lin lay bay def lin naan xusnu taxallus daal ni zalamtu sunnata man ahya zalama ndeysaan ظلمت سنة من أحيا الظلام ظلمت سنة man de gàttañ lu naa lool xam nga dooni tooñ naa ndaxte zalama al zulmu ci ci luxal arabia mooy an naqsu boo nee zalamtu zaydan mooy naqastu xaqahu boo nee zalama nii mooy wàññi na ma ci alquran am na zulm boo xam ni wàññi lay firi yàlla nee na di ñu nettali saaxibul jannatayni xisaam wa daxala jannatahu euh, kii def déedéet yàlla dafa ni euh, euh, wadrib lahum masala rajulayni jaalna li ahadihima jannatayni min a'naabin wa xasasnaahuma bi naxlin wa jaalna baynahuma zar'a kiltal jannatayni laa yoo xam kiltal jannatayni aatat ukulaha lu topp walam tazlim minhu shay'a walam tazlim ay walam tanqus minhu shay'an walam tazlim minhu ay walam tanqus minhu léegi nag zalamtu sunnata man de wàññi naa wàññi naa tooñ naa maanaam wàññi naa man de gàttañlu naa lool ci lan ci aqub sunnata man ci sunna ka nga xam ni ahya zalaama dafa dundal guddi gi dundal ko ci lan ci ay ci ay rakkaat moo tax ku bëgg a dundal guddi ak guddi ku ko bëgg a dundal na nga ko dundale ci ay julli ci ay rakkaat di di di julli di julli di julli di julli ila an ishtaka qadamaahu durra min waram ñëw na ci sax ibn Xibbaan Aïcha dañ koo ko ni ko ni ko lan mooy ni ko ni ko bi ajabi cheyin raaytihi min rasulillah sallallahu alayhi wa wax ñu lan mooy li gën a yéeme li nga gis ci yonent bi sallallahu alayhi ah dafa am ab guddi goo xam ni yonent bi dafa ne Aïcha tey moom bàyyi ma rek ma ma ma tey da ma ma ma ma yàlla maanaam guddi gi Aïcha nee na yonent bi daal di jóg jàpp ñëw di julli nee di julli di julli di jooy yonent bi di jooy di jooy ilaa yaani ndax ragal yàlla ba Bilaal fekk ko fa daal ni rasulallah maanaam maanaam di julli di jooy di jooy ba Bilaal ñëw di nodd si fajar Bilaal ni ko yaa rasulallah lima tabki wa qad gafara allahu laka ma taqaddama min zambika wa ma taaxar yaa rasul lu tax ngay jooy looy jooy lan ngay tiitati yàlla baal na la baal na la li sa bàkkaar yu njëkk ak sa bàkkaar yu mujj am amutoo bàkkaar mu ni ko afala akunu abdan shakura allahu akbar afala akunu abdan shakuran moom maanaam yontu loolu muy julli maanaam day julli ba ñaari ndëggoom yi di tawat ci lan di tawatu loraange ndax néewi gi néewi ndeysaan moo tax xeet yu dañ xeet nañ ko ci saxaaba yi roy nañ ko ci taabiin yi roy nañ ko ci taabi taabi nañ ko ci saxaaba yi roy nañ ko ci Usmaan ibn Affaan na mushaf lépp tari na ko ci benn rakka ci ci witr Usmaan ibn Euh, Sufyaan Sawri Sufyaan Sawri daf daan julli bu masaan julli day julli bu bu masaan pare dafay tëdd jël ñaar jël ñaari tànkam yi wéer ko ci li ci ci miir bi di di ko yëngal ngir neewi neewi bi rees ndax ndax ndax julli gu kii bu fekkee ñii ñii nga xam ne ñooy taalibe yonent bi maanaam ñooy atbaaru nabi ñoo def loolu waxuma ak yonent bi sallallahu moo tax bu say ni ko zalamtu sunnata man ahya zalama ila an istaka qadamahu durra min warami loolu mooy ba muy julli mu nga ñëw ci nga ñëw ci keroog ba ba keroog eh, keroog xare xare xare xandaq xare xandaq xandaq ba ñuy ba ñuy gas maanaam xazwatu xandaq xazwatul xandaq te mooy xazwatul ahzab jullit ñi di gas di gas di gas yonent bi di ànd ak ñoom di gas di gas yonent bi ànd ak ñoom di gas di gas ñëpp a xiif yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xiif lool ba jël ba ba ba xiif ba lem ay ay ay euh, ñaari côté ci ndiggam ñaari côté mi lem ko ñaari côté yu tedd yu yu nooy yu tedd yooyu sallallahu alayhi wa sallam bi abi bi abaina huwa wa ummahatina lum takk koog doj ndax ndax mu xaw a dëgërul moo tax mu ne ko wa shadda min saxabin ndeysaan wa shadda mu yeew ba ni foog mu yeew ba ba ni foog lan lu tax mu yeew min sax min gi la ñuy wax minu sababiya ay min ay min ajli saxab a saxab saxab laay wax min ajli saxab a saxab mooy xiif lool xiif assaxabu mooy xiif bu metti xiif bu metti metti metti metti lan lan la yow axshaahu al axsha al axsha <clears throat> euh, al axsha mooy jamu xasha al axsha mooy jamu xasha axsha mooy euh, li nga xam ne moom moo moom moo maanaam faar yi faar yi faar yi li mu lem li nga xam ne faar yi moom la moom la li faar yi ëmb loolu Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf koo yeew moo tax mu ni ahsaahu léegi wapawa daa di lem nag Yonent bi alayhi sallam ab wapawa ay ab payyu mooy mooy mu lem lan la lem mu lem euh, alkashu watawaa maanaam mu lem mu taxtal xijaati kashxan al kashxu mooy lan al kashxu mooy euh, maanaam sa biir bu nekk maanaam côté ñaari côté biir al kashxu mooy côté biir moo tax euh, tarafa ma ngi koy wax ca muallaqaam ba daani wa kash wa kashxin latifin kal jadiri muxassarin wa saaqin ka umbubi saq ka umbubi saqiyi al muzallali ka unbubi um saqi aw imrul xays nay wax moom moo koy wax ca euh, ca muallaqam ba taxta taxta alxijaara loolu da ko maanaam daf koo yeew ci suufi ay doj maanaam daf koo ndax doj dëgë ko yaani subhaanallah yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xam ni bu ko neexoon léegi ëpp alal kuy am alal ci àddina yaa ngi alal kuy am alal ci àddina waaye déedéet mutrafal mutrafal adami mutrafal adami mutrafal adam mooy nooy lool nooy lool lool lool xam nga al adam mooy maanaam der ci biiram biir der nooy ñëpp bu fekkente ni Euh, euh, euh, ci bitti la bachar la bachar lay wax al al adam mooy ci biir al bachara mooy ci bitti li ñu gis nga ni waaw waaw xanaa kii kon amuloo lu mu lekk ñu ne ñu ne ko xanaa mënta mënta xanaa moom kon xaa kii woomalul kii di yàlla am am am alal mu ni mu ni déedéet moo ne de waraawadathu ljibaalu shum waraawadathu aljibaalu summu montagne yu kawe yee kawe woo nañ ko ni yaa Muhammad ñëwal ñu soppeeku or ñun ñépp nga moom ñu wa raawadatu xoola subhaanallah bu sayri newul sax wa talabat minhu aljibaal wante dafa ni waraa wa raawadatu baatu muraawada boo koy wax kon yonent bi kon dafa ne la jot ji ñoom ñoo koy forcé yonent bi di bañ moo tax xoola yàlla fi mu ne wa raawadathu allati huwa fi baytiha an nafsihi wa raawadathu allati huwa fi baytiha an nafsihi kon Yuusuf dafa bañ ndaw si ba koo sàkku naka noonu jiba montagne dañuy dañuy bi dañ koy forcé dañuy maanaam sàkku pour nekk or yonent bi jël leen yonent bi daal di bañ daal di bañ an nafsihi walif boppam fa araaha yonent bi wan leen ni maa leen gën a kawe fuuf ayyama shamami ayyama bépp maa yonent bi wan leen bépp kawe ni leen maa leen maa leen gën a riche maa leen gën maa leen gën a riche fuuf sax fa araaha ayyama shamami léegi wa ak léegi nag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi ak maanaam zuhdoom maanaam bàyyi addinaam la la ko la ko gën a feddali la ko gën a mooy loraange gam lora maanaam day lor day maanaam day nekk ci lor yonent bi léeg-léeg sallallahu alayhi wa sallam am na xadis boo xam ni Ibrahim ibn Adham moo ko soloo xadis Abi Hurayra yonent bi alayhi salaam benn bis muy julli toog Abu Hurayra fekk fa yaa rasulallah da ngaa mu ne ko xanaa xiif rek xiif sax jul taxaw ndax xiif loolu mooy seddali ak bàyyi àddinaam ndax bu fekkoon yent bi dafa bàyyi àddina fekk mu riche xam nga dëddu àddina ba pare fekk yow ngay ay milliard milliardaire dan naa yow sa ak sa dëddu àddina yëgoo ko wante koo xam ne ci sa ci ci sa faqr ci sa ñàkk ah amooloo lekk ci nga dëddu àddina moo tax mu ni wa akkadatu zuhdahu la nga xam ne moo gën a feddali dëddu àddunaam fiiha daruratuhu ak loraangeem wa akkada zuhdahu fiiha ay fi dunia ak zuhdu foo ko fekk rek maanaam dafay maanaam zuhdu bu fekkente ni dafay firi dëddu fii lay lay lay lay lay lay taadiya boo ne ana zahidtu fi dunia mooy mooy bàyyi naa àddina moo tax am na fu yaa wa kaanu fiihi min azahidin kon wa akkadat zuhdahu fiiha yonent bi ak dëddu àddinaam lan moo ko feddali daruratuhu ak loraangeem waaye nag xamal ni inna darurata laa taaddu ala al isami maanaam <clears throat> al isma al isma loraange du ci wàññi du mënta wàññi ci moom dara maanaam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam isma bi ko yàlla jox isma bi ko yàlla jox ak loraangeem mënu koo wàññi dara moo tax bu sayri ni inna darurata la taadu ala al isami kon foofu lañ koy yemale wallahu aalam yaakaar naa ni jéem nañ jéem nañ lool nag man man man man euh, parfois daf maa bett yaa ngi dégg man yaakaar naa sax yaakaar naa sax kii nañ ko ba damaa génnoon waaye nag yaakaar naa xaw nañ cee xaw nañoo wax tuuti ñu ngi ñaan yàlla yàlla jariñ ñu ci liñ jot a wax wallahu aalam wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu